cinq yi sax dafay jafe. loolu dafay jafe bi sax mooy jafe parce que taabal ji da ngay ñëw gis 47 liste loolu gis nga boo xamul réalité réew mi dafa bëri ay réalité yu nga xam ni boo ko xamul looy dafay xaw a jafe mais l' essentiel c' est que aujourd'hui gis nañu filtre boobu baax na te filtre boobu. dafa am ci démocratie yëpp amul benn démocratie. ci àdduna wuñ ko mais bu Sénégal bi dañ cee amul démocratie ci bu amul parrainage buñ la waxee France nga xam ne presque ñi wax fii démocratie yëpp ci France dañuy référé wu ou ñu cité France Dominique de Villepin lu ko tere nekk candidat à l' élection présidentielle. loolu la lay wax mais boobu boobu ñu ko fi defoon fii non day bu parrainage bi ñu France bu ko fi defoon fii ci lay gën a méttee. par franc c' les élus c' les élus donc moom moo gën a métti mais président Macky Sall a que le peuple soit associé à ça. et est pourquoi am na liste yu nga xam ne. mooy bi leen arrangé tam. non du question arrangé dafa arrangé réew mi c' à dire que citoyen bu participer le citoyen est au cœur de toutes les présidentielle gis ay ponkal ci politique ñu daaneel ci yi nga gis. ponkal euh, ponkal ci ponkal ci politique mooy. te diisaay ma déglu ma rek ponkal ci politique du ci làmmiñ. logiciel bi ngeen def moo leen segg. ma ne amul logiciel nit gis nga nit looy wax nanga ko teg ci dëgg c'est-à-dire que xam nga mbir mi dafa amoon lu nga xam ne yow mën nga dem ci carte d'identité bu nekk mais am na benn point boo xam ne moo waroon euh, différencier le so mooy taay bi te taay bi boo tiimul carte bi nit ki bu jox la ko doo ko am mën nga dem am numéro carte d'identité yu yàgg parce que yaa ngi yoroon fichier électoral et cetera mais taay bi doo ko fa am taay boobu nag mooy daane ñu bëri. parce que dafa am dañu ne par exemple Babacar Fall nga war a 1 mètre 85 boo ko xamul bu fekkee Babacar Fall indilul carte d'identité doo xam ne 1 mètre 85 moo ci nekk yooyu mooy lu ci nekk lu nga xam ne lu leer mais benn la mais dama bëgg mais aussi il faut ñu del boobu passé nañ ko parce que sénégalais yëpp tey jàpp nañ ni parrainage lu baax la ci élection yi yu ñu mënta nekk nag yu mënta nekk man jàpp naa même élection jàpp naa jàpp mais waaw absolument mais bu ñu démocratie di jéggi ay tànk ñuy dem il faut pas que démocratie rey démocratie parce que bu ñu demoon tey ñuy def ay 47 la am suba ñu am 97 liste mais naka la ñuy dem ba blocage wote day am ci ci réew mi te loolu nag musiba la bu nga xam ni euh, président ak gouvernement Sénégal euh, musal nañu ci mais ci ëpp solo. mooy tension nag ci dëkk bi. mais xam nga lool aussi. am nga booy analyser dama ko ciy boole. ni élection yi demee liste yi ñu rejeté invalidé mi ngi indi tension ci dëkk bi. dënn yaa ngi jóg mais mais mais ba mais gën mel ne la xam nga daf mel ni yow xam Babacar mën naa wax ak yooyu yow milieu sportif nga nekk équipe bi danañ ñëw indi seen i licence mais dana am ñoo nga xam ne buñ ci foro dañu jàpp leen ak lu coow mënta am du joueur bi du football loolu mooy yoon c'est-à-dire que nit ñi aussi dañu wax ni état de droit c'est tout le monde qui se soumet au droit bu fekkente ni dañoo ñëwoon def benn bokk yaakaar mais gars yi dañoo ñëw ñu wane liste play am na problème ministre bi ci nguur gi la bokk mu rejeté ko bu fekkoon ni dañoo protéger Benno ak ñu sécuriser Benno dégg nga ci ci wax fii tolérance dama jàpp non dëgg dëgg neex yàlla parce que loolu ñu ngi ko découvrir bien après du se la maate te ñu ko découvrir eh, opposition la ñëw ñëw déclaré ko donc du se la maate su doon amul kenn kuy dem liste. di bëgg mais la preuve Abdoulaye Seydou Sow yéen a ngi dem conseil constitutionnel seen mandataire dem fa ànd ak euh, seen avocat euh, seen mandataire Benoît Sambou ànd ak seen avocat maître Ousmane Seye. ngeen bëgg a nulloo liste Yewwi Askan Wi Dakar ndax ne ngeen sàmmonteewul ak parité ba pare yéen ngeen bëgg seen list suppléant bi sàmm